asalaamualeykum warahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk way gëmi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen jéggal wér te di leen jéggal ñaan ci kàttanu yàlla sunu borom boo leen jéggal yi ñëpp fii saahiri wal baatini ñaamoon mbégte bu baax ñëwaat fii ñëw ak ci kayit yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Habibullahi Seck moo ko bind fukki fan ak ñaar ci mboolam fanu gàmm ci atum 1426 nuuraaniyatin minallahi lansimi ci ñaalu kayit bi muy wax ne inna allaha maana fa qaala wal mum yaddaka ila jannahika taxruj baylaa min xayri suin ayatan oxre linuriyaka min ayatina kubre saddaqallahu al asimu tey daf ci xam ne ne Cheikh Bassirou Seck moom Jama Soxna Cissé bi ma amee fukki at juróom benn la tàmbali di jox yaayam tabaski loolu moo sos barkeem ki nga xam ne mooy Cheikh Bassirou Seck borom Touba Saloum dafa gën a àdduna bis alxames ñeenti fan ci rek gàmmu ci atum 1328 hijriyatin nekk bi 1328 nuraaniyatin minallahi laasimi bi mu dundee nag ba xam fukki at ak juróom-benn la tàmbali di jox yaayam tabaski jox nag yaayam tabaski ñetti xat yaayam soo ko làqu kon Seex bu Sekk bi yaayam di làqu booba am na fukki xat ak juróom-ñeent jëfam jooju na borom bi jaaree nag dafa ko barke bii moo xam waaye haula'i sufaa'una hindallahi mooy fukkaat ak juróom benn la tàmbali ya wër di ay sar ak tur loolu ma sosu barkeem loolu nag am na luñ ci leeral ci waxtaan bi jal mo ci bin yam ni yow dajale ngëneel xaaral li mu ñaari aayatu yi ndimbal tàmbali bi wér nem sam ni yàlla baatu aayatu nag lim bi mën na nekk seize ci saab fu jaar mën itam dix-sept ndax su nga jël asar xel mu nek cinq alif bi la yaa bi nek 10 muy 16 su fekkee bi tey dangaa jël ñaari alif yi alif bu nekk compté ko un muy deux asaka bi nekk cinq lu sept la yaa bi nekk dix muy dix-sept moo baatu aayatu nit mën na ko lim mu jox ko dix-sept mën na ko limit mu jox ko seize yàlla na yenn jamono dana gërëm lim ko ci seize yenn jamono muy gërëm lim ko ci dix-sept dafa gërëm lim ko ci limu seize suba nag aaya bi nga xam ma defar kayit bi baatu aayatu bi ñëw na fa ñaari yoon mel ni kon ñaari seize ñu leeral la soo ko muy trente mu jur 32 ci xati miladiya wala 33 ci xati sëriñ mu ne yow judd ci yow ne ngëneel foofu ba faa gees rek feeñal kéemaan ci wàllu xam ndem mooy sa cër wala feeñal kéemaan ci wàllu wërsëg ndem mooy sa cër ndem soo am ne yàlla mu tekki ne ala ilallahi tasirul umuri soo suxri fi tisaan wa samaanuna aayatan mu ci xam la ngëneel ci googu wet umuri ko judd gannaaw 1998 miladiya di 8418 nuraaniyatin minallahi lansimi man yow mi nga xam ne danga judd ci atum 1998 jëm ci 2000 bi nii yaa judd ci jamonoy ngëneel waaye ñi nga xam ne ñoo judd njëkk loola seen lim nii la mooy ñi nga xam ne ñoo judd ci jamonoy wilaaya ñooñu ko ci bokk balaa nga ko beeku dafay yàl kemaan ci wàllu xam ndem modicité wala nga fayal kemaan ci wàllu wërsëg ndem sa ko beeku noonu ànd ak texe ëllëg benn ci lim yi ñuy wax sa ci ngay xubbeekoo muy 33 at file 48 diggante boobu boo xam nekk na fi rek nit ki mën na fa xubbeekoo ci wàllu yàlla mooy xañ bi gën a teel wala 48 flex 55 diggante bobu hit numéro bo xam nek na fa rek nek ki mën na fa ubbeeku ci walu yalla mooy hay ñaareel bi wala 56 fo ba ci faatu mën a xam ne texe wala 56 diggante bobu ba fi nek la di numéro bo xam nek na bo rek nek ki mën na fa ubbeeku ci walu yalla mooy xañ bi gën naaj a ubbe ko mom na nare ana texe ëlëk lu jiitu mu ko 33 ci at sëriñ moo tax ki nga xam ma sey Abdou jamal daan wax ne ubbe ko mom bu jëlee 33 borom tomb mbaa ko ñuy tooñ borom tomb mooy nit koo xam ne yàlla ko mere moo xam lu loo ma def it sax ñu juboo gannaaw kooku du baax kon teyam ji yàlla mën na may buntu ba ko bëggee rek mu ko ku ñu tooñ nag koo xam ne dafa judd fekk bàyyi ma yaayam takkante wuñ kooku Sëñ Tuubaa dafa wax joo xam ne topp nañ diinaam muy lu wér nga xam ne bëgg lu baax bañ lu bon ci sax balaa ko jaam ñi ne doom jooju dem aljana direct soo suñu wax la raaf lay dem kon kooku mel ne jaamu yàlla gisoon na ci waaye di ko tax a texe ci ni ko mën a waxee kon kooku addunaam ji yàlla mën na ko wërsëgal mor doom yi mel na ci bëri ci ñoom wërsëg adduna bi dañ koy xam waaye texe ëllëg moom di jiitu moo ko 33 ki nga xam mooy beekoon 33 atam nga xam ne moom lañ koy misaalee mooy Cheikh Mamadou Habiboulaye Seck haa'ulaa'i sufhaa'unaa 'indallaahi moom ba mu ñëw si njàng booba ñaar fukki ak ñeent la mu gis ne mooy li nga xam ne jàng ci téere yi mel ne lu mu ci ngay rek am na ko waaye nag xam-xamu baatin bi moo yaram jaay ba gindoo ak boromam mu ci li def luy tax yàlla mer ci mbiram gindee kooku la ñoroon na ko ba tax mu bëgg tarbiya baayam Seex ba si Sekk waaye nag baa soobu tarbiya ga mu koy seetantal ba xam bu ko sooboo nu mu ñëwee dina man wala déet ndax mu day nit koo xam lépp lu mu soobu ndaxay bëgg topp ba mu sës ci bii muy xalaat nag ci dox borom bi wax ne ko tarbiya du ko jar ndax yow gindoo ak man te boobu dama la ko bindee soo amee 33 xat rek mu ubbeeku morom ba amee 33 xat la tàmbali jot ndigal lu bàyyi ko ci yàlla mbiru jaam ñi moom na bu ñëwee àdduna fekk na baayam Seex ba Sekk am na ñeent fukki at ak juróom-ñett yu manqué benn mbolam fan moo tax bi Seex Mamadou Abdoulaye Sekk ñëwee àdduna ci 26 novembre 1956 loolu ma nekk sax bu ko béeku Seex Basiru yàlla ko bind mu nekkante wërsëg moo tax bi Seex ci déwén sa nekk 1957 la njëkk am oto boo xam ne moo moo boppam boppam ñu continué nag ba atum 1962 mu tàmbali feeñal kéemaan ci wàllu wërsëg def loo xam ne ñu bëree bëri yéem na leen ndax xam nañu ne sax bu sekk def wërsëg nii du wut wàllu mbay du wut ngay weexal ci wàllu maanaam sëriñ digg bi ñaanal nit ñi nii waaye loolu kat numéro yàlla yàlla def ci moom la ndem 63 64 65 ci atum 1966 nag Cheikh Bou Seck ñëw daal di xeesal dëkk maam bii di Kër Modou Haly ci déwén sa nekk 1967 mu amal fi juma jumaa joo xam ne ko liggéeyee yem na jaam bari ba am na ko ñuy wax alaaji mari xat yi na ko seex ba si sekk ndax sa jumaa ji kër maa noo ko liggéeyee jaaxal na ma ndax jumaa jooju man dama dama gis ne sama baay bi ñuy wax xaali xoli bare ak sama baay masamba xoli bare ak sama baay bi ñuy wax fóodi ko sukka ñett dama baay la yoo xam ne ñaar ñi ñoo bokk ndey ak baay bokk ak ñam rek am na ma ba gis ne sama baay bu ñuy wax xaali xoolu bale doomam bi ñuy wax alaaji ablaay ñoxate dafa la ko jumaa ci dëkkam ba fori ko suko sama baay bi ñu fooli ko suko yow mi tatam dafa ko jumaa ci dëkkam ba di mu la xaali mooy itam man naa góorgóorlu defal sama baay ma sàmm xooli bale jumaa ci dëkkam bii man damay xam-xam commerce ak lu ci yag yag mo commencé liggé bi ak liggé soo dee gut sama xaliss bi jeexna na te yow ma gis ne yow commerce wo yëngoo ci benn façon nga liggéey jumaa joo xam ne yaa ngi ko liggéey ci 66 jours juróom-benn fukki fan ak juróom-benn liggéey bi lépp complété man loolu noo ko ma ne moo ma jaaxal sëñ Ba Seck nag loolu jàppale yàlla rek la ay mari xat ne kon ne jàppale yàlla moom taxawut loolu nag atum 1967 la woon dem 68 69 70 ci atum 1970 sëñ Ba Seck bi mu liggéey këram ko ca Touba ci atum 1971 la ko départ ab départ liggéey bi nag nekk moo taalibe yi su indee tamit tamit semence yi rek di liggéey su nee ba mu jeex ñu indi yeneen tonn dem ba ci biir taalibe yi nag di waxtaan di Seba Seck de xanaa tonton yi bu jeexee rek xaalisam bi jeex fekk Seba Seck moom mu leen di dégg moom benn taalib bi waxtaan di ko wax ne ko nit ñi de ñooy wax ne salimaxa bu la waxee nañ galle galle nag mooy sànnawante xeer kon na la wóoroon salimaxa boobu jëlu xeer a taxaw man ku leen bi itam bu ma jógee Saalum indi leen ba wala kii di leen liggéeyloo man xanaa na noor bi jeex nawet bi ñëw def leneen waaye sama xaalis moom du ngeen ko mën a jeexal liggéey ba nga topp ba liggéey bi xaaj wala sama romb xaaj ci Seba Seck bi benn leetar jox ay ndawam ñëwal bi di leen wax ne sa bu sek nag bind leetar bi wax ne képp ku man fekkee góor nga nga def ci kër gi téeméer fekkee jigéen nga def ci juróom fukk mooy li mu wax nag duut forcé kenn ku ne yaay xool noo ko mën a ndax yàlla mi nga bind jaam ñi teewut kenn loo mënut kon jam du ma teg morom ma lu mënut waaye bu gisee mu wax leen lii dafa bëgg bu ëllëgee yomal xiyam bu jàkkaar Sëñ Tuubaa mu fay ko mu jàll beneen taal bi taxaw ñu fay ko ma mu rus na ëllëg yomal xiyam mu taxaw Sëñ Tuubaa fay ko ba mat mu jàll benn taalibe bi taxawut def ci kër gi dara loolu sëñ Tuubaa war a mën a fay mooy loolu nag moom rus na ko moo tax mu wax leen lii waaye nag loolu forcé ku ne yaay ko ma ne wax na kër xaaj na moo sax romb na xaaj dërëmu taalibe bi dugg ci dërëm mbay dugg ci ak kër gu toll noonu su ko liggéey ba mu xaaj wala mu xaaj mu ne dërëmu taalibe bi dugg ci dërëm mbay dugg ci kon loolu dama taalibe bi ne Ba Seck liggéey bi suñ ko bàyyee mu yeggale ko kon li mu wax moo tax mu dugal taalibe yi waaye liggéey boobu topp na ba mu àgg ndax ci atum 1971 bi mu ko départ ci diggante nekk 1972 la ko yeggali ba mu ko yeggalee nag ci biir mën a fan gàmmoo Cheikh Ba Seck la ba mu ko sombee ak léegi ñaari at la ak fukki fan ak juróom-ñett bi complète kon liggéeyam boobu moom ba mu koy song yaakaar ci addiyee taalibe yi yaakaar ci seen doole waaye kàttanu yàlla yàlla def ci moom la yaakaar te ba mu ko sombee liggéey nag ba mat gannaaw gi tamit am na yeneen liggéey yu song yoo xam ne ba mu koy song yaakaar ci taalibe lu mel ni jumaa jëm taxawal ci Touba Saloum ba mu koy taxawal ci atum 1986 jumaa jooju taalibe yi am na luñ dajale waaye lañ dajale moom man matal liggéey jumaa ji ndax jumaa ji bañ ko xoolee la nga xam lañ annoncé moo mën nañ xayma moo defal jumaa ji dañu ne 114 millions 604 mille moo ko defar ñu bëri jaam ne loolu kenn du ko man fekk boo seet ba seet moom mën na ko bu wér ndax ba soobu liggéey jumaa ji la miire këram gi def ci magasin koo xam ne yaa ngi liggéey jumaa joo xam ñu ko xayma ci téeméeri ak fukki million ak ñeent ak téeméer junne ak ñaar fukk ak juróom-ñetti téeméer ñëpp nag kii di kenn du ko man nga songo miir miir kër ci taw ay magasin kon loolu xamal na jaam ne yow li ñuy yaakaar ak li nga yaakaar bokkut te liggéey boobu mu liggéey jumaam ji topp na ko juróom-ñeenti at liggéey ba noppi mu jullee ko te ñetti at soog a laaku jaam ñi ndax mu commencé atum 1986 jumaa ji noppi 1995 mu jullee ko laaku 1999 kon Seex Ba Sekk moom ñeent fukki at ak ñett la xam borom defal waaye ki nga xam ne mooy sëñ Fallou Mbacke nag moom dafa ubbee ko ci cinquante six at ndax moom bu ñëwee àdduna xam fukki juróom-benn la tàmbali di sikkatur yàlla bu ñuy wax la tiifu sikkat na ko ñeent fukki at ba mu sax ko nangul wax na yaay Fallou Lahi defal naa la ngëneel loo xam ne loo soxla taxajul ngay ñaan waxal noo ko bëggee ma defee ko ko waaye lu sëñ Fallou lu jiitu muy am cinquante six at lu mu bëgg dafay dugg xel ba maam taal loxoom yàlla ñaan ko ko yàlla def ko ak ba mu cinquante six at nag la xam cërëm na xam mu xam du xam du xam te ci boobu sax dem na ba def ko ci doomam ji sëñ Modou Bousso Dieng te démb tur yàlla moom liñ ci xam mooy yem ko siikar yow bu ko bee lay waaye si doom moom bu ñëwee fekk siikaru dara du ko xam sëñ la nag moom teene tur yàlla te bu mu ci amee mu def ko ci doomam ndax moom dafa tudd Fallu te Fallu jaar mu xam ne deux moom la ak keneen ci la wax sëñ Modou Bousso Dieng na ko indil ma juróomi million dafa am lu ma bëgg a jaay sëñ Modou Bousso Dieng dem làqata million yi indi sëñ Fallu moo jox sëñ Bousso mu compte sëñ Bousso compte ko mu juróomi million yu mat sëkk sëñ la wax sëñ Mor Bousso na ko tey bu ma indi de fekk ma jublu di xonq nga weexal waaye itam weex na dootu xonq ba faw mu ne ko Mor Bousso mu ne ko Mbàkke mu xam mu xam du xam xam ci Fall la ne bu ko gisatul mu yow mii Mor sëñ Mor Bousso daan wax jamonoom ne sëñ Fall de xaama lu muy baale waaye na xam mu xam du xam du xam du koy bàyyi kon sëñ Fall Mbàkke moom 56 at la am rek ubbeeku ñetti ubbeeku yooyu la yàlla wax ne moom mën a xam ne texe ëllëg waaye ubbeeku moom bu jëlee 33. borom yàlla di ko dara ëllëg yawmal qiyaam ku ubbeekoo diggante 15 ba 19 loolu ma nga def wërsëg ma nga def kéemaan ci wàllu wërsëg ma nga fayal kéemaan ci wàllu xam-xam waaye ñi xam dara ci baati ñëpp xam nañ ne boo ëllëgee doo taxe ndax sa ubbeeku gi àndoo taxe ëllëg wala diggante 19 ba 26 diggante boobu numéro yi nekk ku fi ubbeekoo boo ëllëgee dama naa taxe ëllëg 26 ba 32 diggante boobu it ku fi ubbeekoo ñi xam dara ñëpp xam nañ ne kii ëllëg yawmal qiyaam taxe du ko mën def loolu yàlla dogal ki nga xamne ne nag bind li moy Cheikh Mamadou Abibulaye sek ki nga xamne ne ko jangal jàngal bokkom jamm jaamu yàlla la Muridulaye sek borom digal fi ci sek borom digal gën ci di ñam borom bi gërëm waxtaan wi te jéggal ñu lepp lo xamne ñum teul la tay dem lepp lu jub ñu sante ko borom bi ñam rof ñu katan ba ñam bi nek man ko jubal fi sahirul batni ñu ni ñoo ngi jégal ba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci ngeen jëf